auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salaatu wasalaam ala nabil karim allahuma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammad ci Tawfekh Production Internationale ngir indil leen ñett yi nga xam ne nit buy def acc munta ñàkk tànn ci benn lu tax nag ñu di ko indi di ko fram fàcce ci suñu ñetteeli numéro dafay ay catégorie yoo xam ne ci biir aj gi boo ci jël ba keroog ngay jóge xarafa di sànni sa jamra mënutoo ci soppi dara kon dañuy jiital rek ifrat comme ni ñu mënoon jiitalee xiraan wala ñu jiitalee tamatu kon ifrat mooy aj goo xam ne da fas yéene ñëw wax ne allahumma labbayka hajjan kon yow mi ñuy topp fii ci Tawfekh Production bu dee da dem ci aj gi boo xasee ba tànn ifrat jàppal ne mooy aj goo xam ne da ngay ñëw fas yéene ko def moom kese ginnaaw boo waxee allahumma labbayka hajjan ak li nga xam ne moom la ñu wax léegi ci suñu numéro yi nga xam ne moom la ñu weesu jóge nañu étape bu Madina sa yéene dugg na kon ifrat nga fas yéene def si boo ñëwee Kaaba li ngay njëkk a def ak ñi nga àndal wala nga ànd yow mi nga xam ne topp nañu am na loo ci jàpp mooy da ngay dem def sa tawaaf xuddu tawaaf googu ngay def mooy tawaaf goo xam ne tawaafu nuyu Kaaba la parce que dab jàpp ci aj gi yaa ngi fas yéene def ifrat kon tawaaf googu ngay def du jël tawaafu lenn ci li nga xam ne moom nga ñëw wuy si waaye def nga tawaaf goo xam ne nuyu nga kaaba boo ca noppee fas yéene def sa ñaari rakk yi nga xam ne noonu nga ko baaxoo war def ci ginnaaw maqaam Ibrahim ñaari rakk yooyu nag ni nga xam ne noonu nga ko defee woon ci sa yéene ca biir Ali bu dee da nga jaar Madina da ngay def Fatiha tur kitaab ba mu jeex nga jàng xul kaafiroon boo jàngee xul yaal kaafiroon nga jàngaat ci beneen sa beneen euh, beneen euh, beneen nga jàng ci ñaari ràkk yi ñaareelu ràkk bi nga jàng fatiya ba mu jeex nga jàng lixlaas boo sëlmalee sa yéene dugg na nga xam ne kon loolu mooy li nga xam ne mooy li nga war a def boo boo defee sa tawaaf ba noppi kon tawaaf gi boo ko defee rek ñaari rakk ngay def dem naan zam-zam jóge fa nag fas yéenee nag xam ne yaa ngi dugg nag ci sa ñaareelu ponk ci biir aj googu nga tànn muy ifraat ndax da ngay fas yéene dem directement fa nga xam ne mooy safa ak marwa muy saay nga defe ko noo xam ne nag noonu la ko yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam defe woon jàngale ko noonu ndax inna safa wal marwata min sha'airillah ci bërëb yi la suñu borom joxoñ ko ndax ñi ko jiitu defuñu ko ndax bërëb la boo xam ne lu ne rek fa doon am ci xeetu euh, lu ñaaw waaye nag suñu borom joxoñ ko mu nekk bërëb yoo xam ne da cay bokk kon nag foofu ngay dem def sa ñaareelu ponk ginnaaw bi nga xam ne yéene bi dugg na te tawaaf bi moom tawaafu nuyu kaaba la da nga fas yéene def nag safa ak marwa safa marwa nag boo jugee safa ci doj wa dem marwa muy benn nga jugee marwa ñëw saat safa muy ñaar kon boo ko xoolee safa ak marwa aller retour la ci yoon yi ñu ko defee am na ci ay bërëb yu ñu màndargaal mu vert am ay làmp yoo xam ne da koo topp ba bërëb bi nga xam ne boo fa yeggee rek da ngay def raamul rijal muy raamal boo ko boo ko déggee mooy góor ñi la ñu wax ne ni ñu dëgëral seen ay tànk jéego bu ñu dëgëralee seen jéego yooyu nag mooy waral maanaam jigéen ñi ñoom defoon nañ ko ndax bu ñu fàttee soxna Hajara moom la suñu borom dogaloon mu nekk fa di wutal Ismaïla ndox di ko dox ak li ci taarix indi ba diggante boobu saa yoo xamee ne am na lu mu yitte woon ngir jox ko doom jooju Seydina Ibrahima mu Seydina Ismaïla bu ko defee loolu moo doon tax muy daw diggante boobu ngir rek fas ne wutal euh, Ismaïla ndox mi nga xam ne moom la yittewoo kon diggante boobu góor ñi dañ koy daw mooy diggante boobu nga xam ne ay lampes yu verte la ko Arabie Saoudite ni ñu organisé woo ci biir masjid masjid masjid masjid bi organisé nañ ko noo xam ne boo ñëwee rek boo siggee di nga gis lampes yu verte yi nga xam ne moom ngay dox sa dëgg sa jéego dëgër kon nag noonu nga koy defee ba jeexale nag jóge Safa dem Marwa jeexal sa juróom-ñaar